tey bésu naxar la euh, comme yeneen naxar yi ñu am yi sénégalais yi di rek depuis 2012 ak président Macky Sall bésu gàcce la comme ni ñu amee yeneen gàcce askan wi am yeneen gàcce depuis euh, tey on a assisté à un de justice on a assisté à une parodie de justice li am tey day firndeel li ñu yàgg xeex muy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi am ci Sénégal ci fànn yu bëri rawatina ci yoon rawatina ci justice boo àndee ak Macky sàll dara du la dal loo munti def dara du la si fekk waaye boo nekkee koo xam ne day défendre njëriñu askanu Sénégal et de manière intransigeante te loolu mooy marque de fabrique ki nga xam ne moom mooy monsieur le maire député monsieur le député maire Barthélémy Diaz eh bien bu boobaa Euh, justice dina la tongali bu boobaa gendarmerie dina la tongali bu boobaa euh, dinañ def yëpp pour nga bañ nekk maire bu boobaa même boo nekkee maire ñu continuer euh, di la buntu xatal lu ëpp juróom fukki nit bokk ci sa cabinet ak ñoom seen ñu bloqué seen salaire lii mooy ndumbelaan bi nga xam ne noonu la président Macky Sall transformé suñu réew muy Sénégal or dama koy faral di fàttali le projet c'était un peuple un but une foi et non deux peuples deux buts deux fois deux peuples mooy benn peuple boo xam ne lu ko neex def sàcc xaalisu askan bi këpp kees randal rey nit torturer ay nit ba ñu dee sàcc suufu askan bi du mujj fenn président Macky Sall jël concom teg ko ci dossier teg ko ci li nga xam ne moom mooy loosu justice mais boo nekkee un patriote un patriote authentique combattre les médias yow mënoo am jàmm say mbokk mënuñu am jàmm say xarit mënuñu am jàmm ñi ngay àndal ci wàllu politique say collaborateur duñu am jàmm donc li xew tey bettuñu je crois que ku yeewu tey Sénégal nga gis Auchan yi tëj ay auto gendarmerie garé fa fii rek ci koñ bi waaw tu as l'impression gendarme yu nekk Sénégal yépp ñu ngi autour de la maison ñu ngi ci biir quartier bi ku yeewu tey ce matin gis réew mi ni mu tëddee ak gendarme yi ni ñu nekkee ci mbedd bi waroon nga comprendre ne li nga xam ne mooy décision bi na naroon daal parce que personne n'a fait un appel à la mobilisation lu dul ne député yi nañu ànd ak ki nga xam ne mooy seen naataango monsieur le député maire Barthélémy donc on s'attendait un peu à cette décision euh, nous ne sommes pas surpris mais nous sommes tout de même choqués voilà nous tout de même choqués comme nous le à chaque fois que nous constatons que le droit n'est pas dit. Comme nous constatons à chaque fois que euh, le président Macky Sall moom mooy manipuler exécutif bëgg manipuler législatif di manipuler euh, le judiciaire loolu nag mooy combat wu Barthélémy Diaz mooy suñu combat ñun ñëpp nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité mais sans réserve totale à notre camarade à notre frère à notre maire à notre député euh, Barthélémy Diaz et la lutte va continuer la lutte va continuer parce que bu fekkee dañoo xalaat ne lii moo ñuy tax a dellu ginnaaw eh bien le président Macky Sall qu'il sache que il est en train de se foutre le doigt dans l'œil mais jusqu'au coude la lutte va continuer Barthélémy Diaz va rester debout Barthélémy Diaz vaincra la lutte va continuer les patriotes vont rester debout les patriotes vont se battre les patriotes euh, vaincront Euh, comme Nico Barthélémy Diaz doon wax sànq ça fait dix ans que nous résistons ça fait dix ans que nous nous battons ça fait dix ans que nous que nous faisons face depuis quelques mois le rapport de force a changé donc c'est pas aujourd'hui que nous allons flancher c'est pas aujourd'hui que nous allons lever le drapeau blanc la lutte va continuer jusqu'à ce que ce pays la change ce continent la change la justice change Voilà, l'exécutif change, l'Assemblée nationale va changer. Et ça sera par la force, il n'y a pas de choix. Donc que tout le monde reste mobilisé. Que parce que oui, nous sommes les premiers boucliers de Barthélemy Diaz. Nous sommes les premiers boucliers de toutes celles et de tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal dans une autre Afrique. Je vous remercie.